waral du juum ci jannaaya jërëjëfati Cheikh Bassirou yàlla yàlla guddal sa fan wéral saw yaram ku fi nekk na wax ne sëñ Bassirou Touré yàlla na fi yàgg te wér waaye tam ñu waxaat ne Serigne Abdou Khadir Mbacke ibnu Serigne Cheikhouna yàlla na fi yàgg te ak njabootu Cheikh Abdou gi fi nekk ñëpp ñu ngi siyaare bu baax Serigne Makhtar Ndiaga Faye ak mboolem ñi mu àndal ci ànd bi nu ànd ak Serigne Bassirou Touré jërë ngeen jëf sant nañ bu baax gërëm nañ ñëpp. jërëjëf sëriñ Bassirou Touré kon xanaa lañuy jox sëriñ Cheikh Ndiaye Neylo moom it mu doxal ba ci kanamee sëriñ Makhtar Ndiaga Faye moo fi ak sëriñ basiiru Mbuub léegi sëriñ Babacar Mbuub sëriñ Mor Seck kon su ko defee rek ñuy defar xéewal tamit mën nañoo waaj su ko defee balaa gan ñi di fi jóge rek samil alim min sari seytaani la hawla wala quwwata illa billahi hasim in alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu kama yanbaghi jalali mulkihi wa azima usalli wa usallimu ala afdali xalqihi sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sabi ridwani wa tamkin wa radiyallahu an sayxina alxadim wa an jamihi xulafaihi wa ahli tariqatihi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ginnaaw biñ santee suñu borom tabaraka wa taala di julliwaat ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam di jëlaat nag sunu jëmm ak sunu ruu lépp jibbalaat Seyxul Xadim ñu ngi nuyu mbooloo mi fi teew yépp soxna yi ak góor yi di jiital nag ci nuyoo bi mbooleem ñi nga xamante ni dañoo tooge jataayub Sëriñ Tuuba ñu doon ay kilifa nekk ci jataay bi waa Daaru Salaam Diouf ñi ngi leen di nuyu lu bari di leen siyaara di leen jottali ab nuyu boo xamante ni ma nga bàyyikoo ci sunu kilifa sunu jëwriñ sunu sëriñ muy Cheikh Abdou Lahad Ndiaye di jottali itam mbooleem nuyoo ñi topp ci ginnaawam ñépp moo xam góor ñi la wala jigéen ñi nuyoo boobu nag ñoo ngi koy yëkkati di ko teg ci loxo Cheikh Jili moom mi nga xamante ni muy jëwriñu jataay bi moo dara ñëwul ñi ngi sant bu baax di gërëm ci bis bi nga xamante ni bis la bu ñépp la ñeel ndax bis bi ki nga xamante ni nii moo ko waral muy Cheikh Abdoul Ahad Cheikh di taalibeb Serigne di taalibeb Serigne Touba waaye di doomi Serigne Touba keroog bi mu ganee àddina sayxul xadim dafa wax mag ñi ni leen dama bëgg ngeen ñaanalal ma ko ndax daal jëmm la juma am ci moom yaakaar lool dégg naa ci mag mu baax mu wax ni am na benn bis mu jamonoonte ak sëñ Abdou Lahad ñuy waxtaan ba ag ci mu laaj serigne abdullah Lahad ne ko mag ñi nga xamanteni serigne touba Tuubaa woolu woolu na len ngir ñu di la ñaanal ndax xam nga len mu ne ko ben serigne dam Abdourahman Lo mu jo xamanteni kep ku judd ci mbacke mo la jangal ba di mbokkum mbokkum serigne touba waye yaakaare tam serigne touba kon jëmm la joo xamante ni nii ñëw ci bisam war na képp ku yaakaar Serigne Touba waaye itam sante ko ki nga xamante ni moo waral woote bi muy Cheikh li ndax la tax mooy bu ñuul woon ci lii dinañ dem ci leneen te dem gin dem jëm ci leneen yiw win yaakaare fii xamunu ba xam danañ ko am foofu wala déet te nag li tax fàttaliku nitug yàlla am solo fépp foo xamante ni ñoom ko fay tuddee di fàttaliku ci moom di ca barkeelu yërmande suñu boroom dafay wàcc ndax baaxoo fadoo lan bi sikkirillaahi xaalixihim waaye fanaw ma fii li baaxoo bil munaajaati seexul xadim dafa wax ni gaa yu baax yi nga xamante ni seeni nilaw guddi dañ koo jaayoon jënde ko sàbbaal suñ boroom ak di ko jaamu di rub guddi gi yépp nee na ñooñu moom albuka war na ci jooy ci ñoom te mooy ma jooy leen waxal buka ala saadaati amwaati nee na tabkil araadi alayhim ka samawaati nee na yi yàlla yooyu bis bu ñu faatoo dem ci beneen pee suuf si dana leen jooy asamaan si tam di leen jooy kon fàttaliku nitu yàlla yëmande suñ borom da cee nekk njëggaluk suñ borom itam daf cee nekk ba tax nag képp koo xamante ni woo na la ci woo na la ci loo xamante ni yiw la woo xamante ni nii xëy na moom mën naa njortu fay ga waaye mënta xam lépp tey mbirum Serigne Touba dañoo war a xam ni yëngu ci ak jëf ci dafa jot bu yàgg waaye dafa raw nag ci jamono jii nu toll nag ndax li tax mooy li jafe dafa bareetut waaye li gën a jafe mooy topp suñ boroom jaamu ko bu wér ndax la tax dafa am lu yaram soxla waxtu wu jot te baaxul ci roo muy lekk ak naan moom la yaram di soxla ndax mooy li koy dundal waaye rootam dafa am lu soxla muy leeru suñ boroom ci lay dund kon mbir mu mel noonu dafa mat a xam dafa mat a ràññetle te ko xamanteni ni fuñ la seen yaakar ci yow Serigne Touba sa bo waxe ñu dégg ci yow ay kaddu yu woné ni bëgg Serigne Touba war nga mëna nek roy way way war nga nek nit ko xamanteni ni tam nit ku jup ngay doon. alquran mom la abdullah rek moy li ci am baat bi ci ëpp solo moy moy jup suñu Abdul Ahad nee na bari bari ñetti maska rek la ca nam ko firé nak dani maska ak lonku la ak maska ak yet ak maska ak néeg neena na bi alayhi salatu wassalam de la waralan muy jihar maska ak lonku ga la ca lonku won la bëgg mu deñ lepp talé maska ak yet ga nag mooy ñi nga xamanteni dañu jup jub moy ihdinas siratal mustaqim nee na masque ak néeg gi nag mooy ñi nga xamante ne ñooy kaafir billaahi mooy yéefar yi dëgg ñoom moom waaraate mënta dugg ci seen nopp mënta tàbbi ci seenub xol ndax am xamuñu ko te amuñu ci soxla kon moom sëñ Abdou Lahad ci am njàngaleem akuk déggam moom loolu la wax misaal ko tam ci ñetti njanaawu muy toor toor naat ak ndóbin ndax naat kenn ku nekk xam na ni dafa weex du ñaari melo waaye benn melo la ndax dafa weex tàll mu desaat beneen picc bu ñuy wax ndobin ndobin moom ku ne xam na ni dafa ñuul kukk amul beneen couleur bu ñuul mu des tam beneen njanaaw bu ñuy wax naat naat nag mooy ki nga xamante ni bis penc ci bu ciow la yagge ak taxaway ba rek moma ndax neena tor tor mom dafa wex tal ben melo rek la am koku moy ihdina siratal mustaqim moy ki jub xocc tegu ci njub neena koku mom bu euleuk sa bu sa taxawé ba suñ borom dajale jam yi mom xamna fam jëm te day naaw rek dem du sonal ben du sonal bopam mu dess nak ndobin ndobin mom kenn ku ne xamna ni lépp ma ñuul dara am soppeku lépp ma ñuul ndobin moomu nag mooy ki nga xamante ni dafa taqoon yépp ak bàkkaar ñuul ku amul woon ci soxla ci yàlla nee na wala yonent bi nee na waaye ci boppam la nekkoon kooku moom itam xam na këram te mooy safara kon moom it du yàggal kenn day daal di naaw rek dem këram mu des nag naat naat moom kenn ku ne xam na ni couleur yu bari dafa jaxasoo ci moom boo xoolee ci moom ñuul di nga ko gis boo xoolee ci moom weex di nga ko gis boo xoolee ci moom itam leneen di nga ko gis te bu alxuraan de wax naa wa isa laqu lazina amanu gaa yooyee ya ñi nga xamante ni buñ ñëwee teew tey ci bis bu mel nii wane ni nun kat suñu yitte ak suñu bëgg lépp mooy lii ci la ñuy dox ci lañuy yëngu waaye buñ buñ weesoo làmp yi ba dugg ci lëndëm gi yoraat jeneen jikko ñooñu nag ñooy naar feq yi te yonent bi alayhi salaatu wasalaam jëmm mus naa wàcc ab liggéey ñu andi ko waajal ko ba ñëw tëral ko ngir war koo jullee Seydina Omar daal di wax ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko jëmm ji ñu tëral tay day ngir bëgg koo jullee ab naar feq la woon gëmul woon yàlla li muy wax li mu doon wax du dëgg ci moom yonent bi ni teg ba yàgg aayab alxuraan daal di ñëw buy dëggal waxe Omar di ko wax ni moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñii nga xamante ni ay naar feq lañ bis bu ñu faatootee bu leen jullee tabul taxaw tam ci seen bàmmeel ya di leen ñaanal kon naat moom dafa ànd ak coono bari jafe-jafe mooy koo xamante ni day wax lu dul dëgg ci moom bu duggee ca jàkka ja bu jullee nga defee ni julli gi mat na rafet na waaye lu mu romb mu dem loolu amul njariñ naar feq dëgg ngoog bu rombee nit koo xamante ni nii kat xamul ci moom lu bari jéemut a xam ca moom gësuwul ca moom leneen itam lu dul di xool ci moom ab safaan mbaa muy wax ci moom lu bon loolu ba tey ci koy naar féq la bon la bokk tey nit lépp loo xamante ni bëggul koo ko def daf ko war a moytu digganteem ak moroomam te nag loolu moom jullit yëpp jullit yëpp ñoo ci yem ab jullit moom dafa am melo yoo xamante ni nii mooy li ko war ndax ak jullit moom bu ñu ko tuddee lépp lu baax lu mën a doon lu nekk rek ma nga ci biir bu fekkee jullit ga mat na xaw ma nag ñu di ko wax ci aw làmmañ te fekk na nekku ci biir kon sëñ du laat jox wàccuwaayam seexul xadim ndax nee na li taxoon moom mu taxaw ci liggéeyal Serigne tubaa jox ko léppam yaakaar ji Serigne Touba amoon ci moom lay bañ mu tas kon nak mom ay guddem ak bëccëgam lépp ci liggéeyal cheikhul khadim lako don def te nak mu liggéeyal ko xamanteni ni ku mata a la khala cheikh ahmadu bamba inna allah tabaraka wa taala rafaani ila samaai wa najani ma la yasharu huna abadan min an busaara busara neena sunu borom tabaraka wa taala yekati na ma ba asaman mu déey ma loo xamante ni nii munta feeñ maanaam xiiwal ay ci ay xiiwal munta feeñ ci kaw suuf rekk ngir bi mu dëggal sëñ Abdou Lahad ne Sëriñ Tuubaa lam liggéeyal sunu borom buñ ko doon misaal ci ndab day mel ni yow mu duy ndat ba mu fees la cay tuuroo nee na mooy xiiwal yi feeñ ci àddina murid yi kenn ku ci nekk defe ni yow rek yow la Sëriñ Tuubaa dema ci géej gi ndax la tax mooy bu doon jëmma fo xol gis ko waye fo lamb daj ko muy cheikhul khadim kon Cheikh abdullah Ahad dafa nekkoon jëm jo xamanteni ni ab jant la jant nak bu fenkee mom kenn du ko won sa morom lu ni fang nak olof yi dañuy wax ni kenn du ko jeexaat moy cheikh abdullah bo boo way kat ba di wax naa moo ni toxal ma fa yu yalla nañu meññat ma gum fa toxal wutal fa ak tandarma keful ci señ bi wallahi mo am warma jumaa ji ñi ko xamoon bu yàgg lañ xamoon ca kanamu jumaa ji ak li ko wër mooy ak ay garab yu féexoon moo fa nekk taalibe yi nag ak ñenn ñi nga xamante ni xëy na jàppoon nañ ni moom bàmba ji moom léegi lépp sotti na dañoo soxla woon garab yooyu ngir péex ma moom dafa daje woon ak seen bëgg sëñ Abdou Lahad moo déjj lu garab ya maasale pax ya samp fa ay tàndarma ngir nee nag keruk tàndarma moom féexul péex moo xamante ni nit ki dana ko romb ba di ko xemem ci di fa toog di fa yendu mbaa fay dugg ci lu yoonam nekkul sëñ Abdou Lahad foofu la taxawoon moom daa dee wax ne nag lépp lu jékkul ci dëkk ak sëriñ bi dindi loola moom maa ci teg bakkan bi foofu la sëñ Abdou Lahad taxawoon daa dee wax ne dëkkub sëriñ Touba moom lépp lu jékkul ci dëkkaaleeg sëriñ ci dëkkub sëriñ Touba bii képp ku ko fi def moom sama bakkan bii laa ci teg te xam nga lu gën a jafe ci àddina mooy régler doomu aadama ki gën a jafe jafee régler nag mooy nga régler koo xamante ni régaloo ko kooku moo gën a jafee régler te sëñ Abdou foofu la taxawoon moom te li muy wax moom li li mu bëgg te di ko de te taxaw ci woo ci nit ñi tam ba da cee bañul woon dara moom ku dëkk ci biir dëkk bi ku ko génn la yemale moom tey nag noo xam ni kenn ku ci nekk war ngaa góor góor lu nag ci sa bopp bu baax surtout boo dee ab taalibe bi ndax fépp foo yeewoo muy sa kër nga ni fii sama kër war ngaa jàpp ni kër gi mooy sa Touba lépp loo xamante ne tey bu sëñ siidi Maxtaar ñëwoon ca biir kër ga du bëtam du ca dal muy doon loo xamante ni lu neexut suñ boroom la nga sàmmoonte ak moom ca sa kër ga ba loola bañ faa am mu mel ni Serigne Touba taxaw ci sa kanam loolu daal buñ ko defee suñ taalibe gi ñuy woote dana wér ci nun waaye nag bu koor gi ñëwee nu defee ni wor moom ku ko def tàbbi àjjana wala bu julli jotee moom jàkka ji ku fa jiitu tàbbi àjjana mbir mi foofu la tàmbalee ci jaamu yàlla waaye jeexewu fi foofu la tàmbalee waaye jeexewu fi nit moom balaa jullit moom balaa matub jullit xolom bi da koy sellal lim ciy denc di ci dencal nit ñi bu fekkante woon ni ñi ko dencal génne ko ba wan leen ko ñu bég ci waaye li yées mooy ngay tudd nit foo xamante ni bala ngaa tudd turam da nga geesu ci xibla yépp door a tàmbulee wax jëw moom benn képp ci baax amutum ñaareel te mooy alxuraan alxuraan daal képp ku ko mokkal ba di ko tari xooloo ko boobu jëw moom am na njariñ waaye beneen jëw bu ko bu ko ñaareel moom boo ko xoolee rek boo ko càmbaree ba ci biir rek di nga ca gis leneen loo xamante ni loraange lay doon ca ko koy def te nag jëw moom ñaar a koy def njaaloo tam ñaar a koy def te sëñ Abdu dafa waxoon ni fu kenn nekk yàllaa ko ñaareel fu ñaar nekk yàllaa leen ñetteel fu fu mbooloo nekk ma nga ci seen biir te nag suñ borom moom fa in lam tàkkun taraahu waaye fa innahu yaraaka yàlla moom boo ko gisut it moom ak lu mën a xew moom mi ngi jàkkaarloog yow teyit nag koo xamante ni daf laa bind wala àddina jël ñaari malaayika muy mun munkir ak muy raqib ak xatit kenn ku ne mu teg ko ci sa mbagg sant ko ab liggéey ci yow war na noo xam ne noonu moom mënunoo raw su loolu dañ cee war a bàyyi xel bu baax ndax malaayika yi nga xamante ni ñoom la jox liggéey boobu malaat bi wéré di tëdd ci kaw lal bi di wonk on oh, on oh, jooju muy def sax dañ koy bind te fekk na booba moom kooko moom tàqalikoo na ak sagoom kon nu bàyyi sunu xel ci ni képp ku tudde sa bopp ab taalu bi danga war a góorgóorlu bu baax waaye waroo bëggul yomb yaakaar Serigne Touba bokk boole ko bëgg lu yomb dafa mënta nekk ndax koo xamante ni yow cëppeel nañ la ci ci pax moo xamante ni kenn xamul yamuwaay ba maasale la dem seen yoon loola ko teg kennal suñ boroom ak jàmm ko waxtu julli jot na fexe pexe mu ne nattu nañ la ko ngir bëgg nga mooy sa borom ba mu jaral la nga lu ci ndox loolu mat naa seet bu baax ba nga xamante ni nii nag waxtu wa jot na ba tubaab bi soññi ko ngir ni ko war ngaa taxaw ci waxtu sa borom bi ngir julli ko ndax yow dangaa wax ni am nga borom booy jaamu tey itam jaamu gi moom lépp lu la ci mën a fekk dala ci fekk waaye doo ko bàyyi waxtu wi jot na kon te nag xama fàttali na ko it nag ni ko gaal gi moom ak lu mën a xew moom sunu gaal la te doo ci julli Sëriñ Tuubaa nag ngir sàmmonteeg àqi ñi mu nekk ci seeni loxo tax mu xool ba xam ne waxtu wi jot na moo tax mu jël der bi sànni ci ndox mi tey ba mu koy def di jiital loxo tànk itam di ca teg itam لم تفندكو رك موي وسختو برب rabbi la xarsi sil juuri wala xafi mahal Moustapha wallaahu li muxridin safi wax ni dëgërloo naa sama borom mi nga xamante ni moo tee aras ba aras bëj nga xamni ni lu ko mën fekk ci jaamu yàlla gi mom da ko ci fekk waye mom du deltu ginnaaw ci waxtu wi wala mu diko fat kon nu lu bu baax ta xamni yaakaar Serigne Touba aw sas la ndax li tax yaakaar Serigne Touba aw sas la mooy danoo war a xalaat ëllëg boo xamante ni teew nañ ci kanamam mu gërëm nu te loolu moom am na ci loo xamante ni nii ci suñu loxo la nekk am na loo xamante ni nag ci loxo Serigne Touba la nekk mooy li mu doon liggéeyal suñu borom moom yàlla mi nga xamante ni mooy nangu nangu na jëfam ci lépp te nee na man du ma samp benn samp sama ginnaaw samam noon di ko biij wala mu ci am menn man-man ba di ko yàq kon nu góorgóorlu bu baax noo ngi sant tey gërëm wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf sëriñ bi